voilà mbokk yi ñu ngi ak Vieux Vieux Top ah Vieux maa ngi lay nuyu di la siyaar euh, démb fii am benn euh, benn drame boo xamante ne bu yéemee la euh, est-ce nga ñu ci revenir. maa ngi nuyu ñëpp ah drame bu métti métti métti métti moo fi am parce que ki ñu def jéeji di suñu papa di suñu xarit di suñu yaay di suñu lépp waaw ñun la am ñu lay toogal waxtaan ñu lay kafal ñu lay reewal demb dafa dafa wàcc ay. dafa teel a wàcc sama seen kër naan ko xanaa taw bi moo tax nga teel a wàcc après mu ñëw suñu kër moo sama mag ñu toog foofu di ataaya quoi mais bi ñu ataaya gisante wuñ mais maa ngi dégg baatam maa ngi dégg baatam mais après muy dégg baatam après déggaatuma baatam mu leen dafa génn mais bi mu génnee kër gi la dem di di waaw yëg ci kaw di nuyu maire maire bi ci kaw mais bi mu nuyu maire bi dafa maire bi nee na téléphone am na ay 18 heures et demi mu mu mu daw wàcc. mais bi Serafal bu mu yow ba wàcc dafa dugg néegam mais bu duggee néegam ko suñu copain bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo boo bokk néeg waaw am na ku ko néeg mooy sama copain bi may àndal xaarim quoi dafa nekkoon gàlle muuru fii ñu noddu timis mu ñëw pour jël jàllaabeem nee na pour dem julli waaw xaadim waaw mais nag bi mu ñëwee di jël jàllaabeem pour julli dafa ñëw tijji bunt bi am ku coincé bunt bi mu mu pousse ñu commencé bunt bi comme il a l'habitude de le fer boo amee gan ak yooyu noonu quoi comme bu amee gan yooyu li mu li mu tàmm di def xam nga day bu ñëwee dugg da koy commencé quoi bu yaakaar dafa am gan rek quoi mu ne xaaral ma dem jël beneen jàllaa bi si kër gi dem julli timis ba timis passé après ma doog a ñëw pour sol yére mais bi bi mu demee ba julli toog tuuti na xaaral ma dem ndax gan gi war naa dem mais bi muy ñëwaat dafa dafa ñëw pousse bunt bi rek. mu dugg tijjee ko mu ñëw yam ci ñëw fekk ñu ñu ñu jam ko ci pour profondeur boo xam ne bu si génn ngay sént ci biir. Xaadim moo ñëw ci kër gi annoncé ñu nouvelle bi ñëw woo ne euh, mu ngi ci kër gi dafa gaañu deret bu bëree ngi fi léegi bi ma déggee loolu ma ne waa maa jaamu après si laa demee seen ne dem xooli ji et affaire yooyu noonu bi ma demee gis mu tëdd mu tëddee ma génnaat. fekk xaadim dem camp sapeur bi di uti ji ndimbal affaire yooyu noonu mais camp sapeur bi dañ ko rejeté parce que dañ ne foog police ñëw te muy nekkoon ci dund ak dee parce que deret bee ngi coulé et tout affaire yooyu noonu après si laa jëlee sama responsabilité dem uti ji taxi bi ma demee uti ji taxi taxi bi ñëw fii gaare mais malheureusement xaadim ñëwagul benn góor nekku fi woon pour ñu dimbali ñu et après ci la beneen grand ñëw pour compresse teg ko ci poudre bi pour mun a arrêter saignée beeg yooyu noonu après par la suite beneen kilifa ñëw andi otoom fekk taxi bee ngi gaara beneen kilifa ñëw andi otoom pour ñu mun a yóbbu kii bi malade bi fële maam Abdou. ñu ngi ko naan Seck lan moo la def lii lan moola la def lii mais nanguwul nanguwul mënul bëgg na wax mais mënul wax finalement lañ ko yóbbu hôpital Maodo mais bu ñu ko yóbbee. o hôpital Mabdou ñoom dañu wax duñ jël benn sapeur bi lañ jege sax. waaw dañoo gàntal naan ñu ay affaire de constat foog foog police ñëw affaire yooyu quoi ku nekk en situation xam ne urgent xam nga tamit fii li fi nekk mënu ko wax ñoom tamit après ñu seen obligé jël seen responsable jël ambulance xam nga waaw affaire yooyu di yóbbu ko bañ ko yóbbee Mabdou yaakaar ne Mabdou dinañ si jàppale ñu yóbbu ko hôpital Mabdou ma Dantec xam nga ñu demaat Dantec xoolal Dantec leen ko waa vie te moom waaw yëpp waaw ba demee fan ni ko delluwaat euh, fii ni ko indiwaat Mabdou si diggante moom si la ga jaamante loon wax dëgg moom ah, wax dëgg jàmbaar la moom parce que moom donte affaire métti na mais mi ngi doon def effort war na effort boobu ka ISRA yu mel nii xam nga sax pour même pas cinq minutes fii xam nga ñuy dem ñuy gànta maam Abdou fii même pas quinze minutes mais comme ñoom seen seen njëriñ fii askan bi la nit moom bu amee lu ko métti yaakaar naa dëkkandoo ma war a njëkk a ñëw soutenir ko xam nga xëy ndaw yu nekk fii deret yii nii xam nga mun na leen perturber quoi moo tax bu na état bi nga si jàpp xool cas ISRA yu mel nii ni ñu koy fexee jël ba pare boobaa ñu doog a toppatoo toppatoo nii quoi. parce que lii du lii yàgg na fi am quoi yu mel nit dem nekk si ISRA ñu koy baaganteroo di ko baaganteroo bu mu dee si ànd loolu dafa man loolu kese ma gën a métti man. loolu kese ma gën a métti ba gën naan état bi nag dafa a dakk quoi parce que système bi gars yi doxee nii adduna bi dépassé nañ ko nit leen benn ordonnance boo xam ne leer na ma ne pharmacie boo dem ko waaw ñoom yooyu seen seen mbir la gars yi leen koy jiñ chaque jour ñoom xam nga lan lañ jublu ci doomu aadama bu toll ci situation boobu ñëw nga nga ko dimbali koy bindal ay ordonnance yoo xam da lay leer ne fii ba suba ñoom seen bopp amuñu seen pharmacie bi si boppam amul garab boobu noonu. gars yi wër amuñu ko ñu ñëw ñuy laaj 5000 ambulance pour yóbbu ko fànn Khadim Sylla copain boobu noonu fekk ko si néeg bi moo ko jox 5000 francs pour mu pour mu yóbbu pour pour ñu transport bi xuloog sax gaan bi war a dawal ambulance bi parce que cas bu toll noonu nga nga mel ni ku nekk sa biir sa biir salon quoi di défilé nu mu la neexee jël temps am ma ne ko chef mu ne ma naa ma ne ko cas d'urgence nga yor war a gaaw mu tontu mais bi ma tontoo tontu ma tontu neexuma mais soo fa nekkoon baat ak tontu rek. moom du sonn man du ma sonn mais kii malade bi la ñuy sonal moo tax mu noppi yaa ngi comprendre mais bi moom moo yëgal boppam ba ci ambulance bi ñu yóbbu ko bi ñu yóbbee fan fan aussi la même chose leen da leen rejeté quoi waaw ne di dellu hôpital parce que ñoom bi ko xoolee dañ ne da ngeen di dellu hôpital Mabdou bi ñuy dellu ci hôpital Mabdou en route ci la ci la yàlla jëlee bakkanam quoi. waaw tam maa vraiment bon kenn mënu ko daal affaire daal daal ki dem tamit bon suñu kii la woon quoi ñun ñëpp suñu suñu suñu suñu xarit la woon quoi man mii sama mag la woon tam pratiquement man ak maa ngi moom ñooy ànd il a 52 ans man maa ngi maa maa ngi moom soo ñu fekkee maa ngi ko may morom à chaque fois dañuy ànd maa ngi moom dañuy dem un peu partout mais xam nga man démb ak ma koy ba muy am fekkuma fi quoi dama demoon dama liggéey woon quoi après ma wàcc aux environs de 22 heures ma ñëw. copain bi ma logé sama sama kii sama sama sama nekk fële sama kër fële mu fekk ma si ko ne ma yaa ngi mais mais Ousmane jam nañ ko quoi mais ba ma koy wax xam nga moom dañ koy assouvage dañ koy mbala quoi ma koy ah, yooyu ah, kenn du ko mbalagee mu léegi si laa ñëwee fekk sama frère bi ma ma Ousseynou ma wax ma ko mën a nu mu demee quoi tout d'accord ñu toog ba si kanam ñu woo ñu ñu dugg si biir xool deret bi ma ko sax man mënu woon kii mënu woon sama première intention mooy kan la war a mën a joteeg ba nga ba mën a tiim Ousmane Seck mindeef boobu ne da nga koy jam parce que kenn xamewu ko problème nit boo histoire sax fee lay dem taxaw kon kooku kan la war a mën a joteeg jote bu métti boo xam ne nii nga tiim ko ba jam ko ba def ko loolu waaw métti na trop waaye kii daal dañuy ñaan yàlla na ko yàlla weer léegi léegi balaa yàgg waaw. wax nañu ni euh, est-ce que xaruwul ci xalaat. Ousmane nit koo xam ne ni Ousmane si gis ma lu ko war a métti si àddina ba mu xaru kooku dara méttiwu ko si dundam nit koo xam ne yëgalul dara sa bopp yow defoo dara muy dara yow lépp jàmm yow chaque jour jaam fair play ngay def kon kooku mënoo xaru gisuma lu ko war a métti lu mën a xaru parce que dégg naa ñëw na suñ ko seet sama yaay 17 heures taxaw noonu di waxtaan ak moom pare wàcc si suuf naan attaay génn tuuti ñu ne dee nga kon kooku mënoo xaru. non loolu yaakaaruma ko de ko. Ousmane Seck non non je ne pense pas rek ndax a la lay wax vraiment exemple daal euh, Sapo lan moo fi njëriñam lan mieux vaut ñu jugee fi benn yoon moo gën parce que ñun mënuñ leen soxla ba pare ñu ne police bi bien vrai que loolu am nañ ci droit loolu seen règlement la mais bakkan ci boppam dafa fort. bakkan foox na torop dem nañ fa ñaari yoon trois trois fois insisté na ñoom ñu bañ dañoo bañ sax. ah man démb samay doom nelawuñu man mii nelawuma ñu ñëpp ñoo bokk fi ñu fanaan di ma bi ma leen waxee dem leen ngeen tëdd nanguwuñu tëdd parce que dañu dañ am na ci ko benn seex bi sax dafa tëdd ba guddi mu jóg dama yaay euh, kay tëdd fii dama mujjee tëdd si wetam parce que tamit choc la daal baaxul tamit aussi si xale. parce mu ne nii moom kenn xamatul fu ñu jëm mbedd sax bu doon fañ la na ñu ne waaye sa biir néeg ñu jam la fa kon léegi kay na ñëpp pare sécurité moom amul si réew mi moom sécurité amul fi dara dara dara ndax kuñ fekk sa biir kër rey la foofu la insécurité commencé waaw. mais nag affaire boo nekk si waxu yoon ñu mun ñu see wax dara mun ñu wax dañ ko rey waaw mun ñu wax ko dañ ko ah, dañ ko rey mun ñu wax dafa xaru daal ñuy bàyyi yoon def